an kolo bu warat nafsun bakkan mun ya yaa hona suma perte de ala ma ca lanq bi ne farantu nako fi jambi lay jambilaay keweta yalla gere fa ko worono top top mako de denga wo in luy mbir tey mbir hmm? kuntu nekk naa jile la min saakhirina bok na ci way toro yi de toro na faw te dootuma ñàkk torox waaw bakkan dana wax lol yomal xiyam de ah yalla buñ bok ci bakkan ñukoy wax yalla yalla ñukoy yalla hit aw taqoola wala wax bakkan ba sax mune law ana la su fekkon naka yalla harani jubal nama ma ci ma ko ma dal di jub hmm? la kuntu kon ma tay ma min minal muttaqiina de bok ci way ragal yalla di su fekkon yalla fu mu jubal de tay te kon di dara bok ci way ragal yalla way yalla jubalul mu ngaw mu ngok mota tax mu aw taqoola wala bu waxat law ana li lii doon tukkoon fa ma waaw law ana laa su fekkoon naka yàlla xaadaani jubal na ma ci topp ko kon mu jub de kon la kuntu ma nekk minal muttaqiina da bokk ci way ragal yi de wala wala mu lu mu muttaqiina da bokk ci way mukk yi da bokk ci way teer yi mbugalam yàlla de maanaam su fekkoon yàlla fa mu jubal ma ragal ko konoon daa mucc ci ci mbugalam mi de ah, aw taqoo la ah, wala bu waxat sax ñi na tara waxtu ba mu gisee xasaaba mbugal ma de mu ne law an na lii su fekkoon ñaan na ma karatan ak dellu ci hadina kon fa akoona danaa nekk minal musine da bokk ci way rafetal yi de ay suma mënoon delluwaat hadina kon de danaa góorgóorlu de ah waaye loolu waa far na àddina dootuñ dellu jeex na de ngoog moo tax mu ne aw taqoola wala bu waxat moom bakkan ba ñi na tara waxtu bam jàkkaarlee xasaan ba mbugal bëri mu ne loo analyse su fekkoon ñeel na ma karatan ak xàkk maanaam ak dellu ci ci hadina ah, fa akoona danaa nekk minal musine da bokk ci rafetal